waaw maa ngi tudd Abdou Aziz nekk président collectif des artisans département de Tivaouane jiite commission artisanale nekk conseil municipal jiite commission artisanale ak secteur informel nekk élu à la chambre du métier de Thiès. nga fàttali lan moo waraloon tey euh, teewaay bi. tey li waraloon liggéey bi rek moo doon ah dañu nekkoon ci benn liggéey bu xaw a yàgg ñu dénk ñu commission nag ci biir maire Tivaouane. dafay jaar aussi pour ñu def activité pour commission bi mën a dund mais ci partenariat bi ñu am ak waa fële ak waa fële ci 3FPT ak CNCA bu bi nga xam ne monsieur Diakha bi moo ko jiite au niveau national ak la CCA régional bi nga xam ni lycée moo ko jiite man ma représenté leen ci département bi ci lañu yàlla dimbalee ñu am cinquante femmes yu war a defal tey defaloon leen tey formation ci saabu la formatrice mi ngi nii muy Maymuna di madame Ndoye yàlla dogal aussi vraiment bi ñu ko dugalee ci biir département bi département bi yëpp tey gis nañ seen bopp pour wax artisan yi rek ñi leen ñun ñi ngi seen disposition lépp loo xam ne am nañ ko ci opportunité fas nañu yéene andi ko ci région bi wasaare ko ci département bi ba ñëpp man ci gis seen bopp 50 personnes ñoo bénéficié wu tay ci formation tay 50 personnes ñoo bénéficié wu ñu formation bi. am na yeneen demandes yu xaar. am nañu 6 formations yu nekk en cours déjà am nañu 100 waxtaan naa ci ak Mamadou Seck le président régional yoo xam ni tailleur la jëm. am nañu aussi yu ñuy def yoo xam ne apprentis la ay tailleur lañu ñoom boobu aussi mi ngi en cours boobu jël nañu 25 apprenti apprentis au niveau fii ci commune bi pour defal leen ay formation ci wàllu ñaw amoon na métal ak bois mais malheureusement centre de formation bu ñu ko defee moo taxoon mënuñu ko exécuter fii au niveau de la commune mais à l'heure actuelle am nañu vingt cinq yoo xamante le président jaxa bi woo na pour emballage lañ ko war def emballage nag peut-être xeyna dina am ay quelques jigéen am ay quelques góor mais ay ndaw la ñuy doon wala mag mu ci bëgg aussi on va le faire mais lepp aussi ñing koy def ci appui bi ñi am ak monsieur le maire Demba Diop si parce que lii tey boo gisee mu antu ba am réussite bi mu am donte le 3 FPT

sur l'appui du monsieur le maire Demba Diop si ñi ngi sant le président Jaxa bu baax aussi di sant wa CNCA aussi le 3FPT ñi ngi koy sant di ñaan yalla aussi di len talal loxo ñu fexé ba jàppale ñu ci ay financement parce que jigéen ñi bu ñu defee formation bu melni nii dafay laaj accompagner ñu ak financement en tout cas am nañ ci yaakar ak collaboration bi ñu am ak monsieur le maire jàpp nañ ni suñu suñu gën jappalo rek dinañu am financement yi soxla pour gëna accompagner jigéen ñi fas yéene nañu aussi jigéen ñi fi ñëw yëpp jugee ci ay commune kenn ku nekk dinañ la fekk sa commune waxtaan ak sa maire wax la importance bi nga xam ne moom la formation bi am pour ñu appuyer leen pour li mën a am une continuité pour ñu mën a xeex ndóol xeex aussi ndaw ñi nga xam ne amuñu liggéey jigéen ñi sax ñi commencé woon di dem ci gaal yi donc je pense que ni lii suñ ko lii suñ ko appliquer yooyu yëpp dina mën a daax quoi. waaw ah, ban conseil ngay jox ñi nga xam ne ñoo doon def formation bi ak population bon conseil bi ma leen di jox rek moy ñom nañu gëna bolo té xamni ñëpp mënu ñoo jitu man mi tay fi ma taxaw di wax am na ñu nekk sama ginaaw tey liggéey bi lu mu dox dox lu ma ko doxal doxal ñooñu bu ñu ci won tay liggéey bi du agsi fii dafay nekk ni auto su gaaree il faut ben chauffeur mo koy dawal donc li ma leen di conseiller il faut ngeen am bureau mais bureau bobu da ngeen di fexe ba wóolante amante confiance sen biir bu dee ñet nit ñoom ñett nit ñoy ñoy bureau bi suñu rencontré maire ñet ñoy ñoy dem parce que aussi mënuñu jël vingt cinq personnes wala cinquante personnes dajale leen ci benn bureau ñëpp bëgg a wax donc organiser wu leen chaque groupe de vingt cinq nañu am un président am un secrétaire général am un trésorier su ko defee su ngeen ci paree ci loolu dinañ fexe maire recevoir leen ñu waxtaan ñu xool nu ñu leen di jàppalee comme ni ko Passa la waxee sànq lépp luñ ci man ñun comme toujours ñu ngi ak moom ñu fexe mu appuyer leen te du tee Ablaye Fall suñu demee ci yeneen. ci yeneen localité yi dinañ gis maire yi fa nekk aussi ñu jàppale leen pour lii mën a am suivi li may wax population bi rek mooy ñi ngi tàllal ñëpp loxo di wax ni lii ñun dañ koy def te yàlla tax def bi te yàlla tax mooy on a des opportunités am nañ ay relations donc dinañ fexe ba ànd ko ci sunu département képp ku fi nekk bëgg jariñu ci li ñuy def ci formation ak bu mu mën a doon nag tey ji yàlla dogal ñu am opportunité pour dugal ko ci région dugal ko ci département bi monsieur le maire aussi wax na ne lu ngeen am ci lu am ci formation je suis prêt pour accompagner leen pour jàppale leen pour ñu réussir di sant suñu formatrice bu baax di sant sama vice présidente Diall ak équipe bi ñu àndal yëpp ñoom Talla Malay Balla Ablaye Fall Mboro Cheikh mbaay le sama vice président monsieur Thierno Sène su ma limee du ma matal mais en tout cas sant nañ ñëpp gërëm nañ ñëpp yéen aussi mention boo xamante ni amul commencement mais amul ab en tout cas kontaan nañ ci sant président Sey eh, le président Sey xam naa du ñàkk moom it dinañu tox ay formation parce que chambre de métier lañ nekk te formation dafay jaar su fa jaaree dina wàcc ci base bi di sant le président régional Khadim ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm di sant jigéen ñi jógee ci environnement bi yëpp ci département bi di ñaanal ñëpp jàmm merci salaamaaleykum man la Ndeye Binta Ndiaye madame Ndoye ñëwoon fii nekk formatrice benn kuréel bu ñuy wax AMPAT

defar nañ saabu mbër boofu defar nañ 100 cent karité pour mag ñi ak bébé yi defar saabu xay saabu xay ñëpp xam nañ antiseptique la niñ fi defar lépp fii lañ ko jëlee te fii lañ koy lekkaatee kon li ñuy bay moom lañ bëgg utiliser waat saabu yi nag yëpp qualité la bi ñu jógee ci loolu eau de javel 100 pour javel lépp ñoom ci conditions yi normal lañ ko teg tey defe naa lépp jaar na yoon ndax loolu lañ ci jublu woon loolu mooy par rapport ak yeneen saabu yi ñuy gis waa xam nga ñun duñu faral di wax ci leneen suñu bopp lañu xam. suñu bopp lañu xam li bi may début bi may doog a ñëw dañ fekk naa leen fi ñu doon defar saabu mais production yi ak euh, modèles yi tout le temps dañuy changé. 3FPT nag day def année bu jot day jëlaat jàngalaatal ay ay nitam ñu tegwaat ci yoon ñu joxaat leen beneen modèle ñu nàmmatal leen ñu dellu delluwaat. ci waar wi li mu wax ne chaque jour dañuy jàng ñun ñi ba léegi dañu ne ci jàng ñu def ba léegi dañu ne ci jàng dañuy jàng baax na waaye dañuy jàng lu gën a baax produit yi fi nekk nag dañ ciy sant yàlla kon ñu ngi ciy bay kon toll nañ ci loo xamante ne bay dundee te loolu la ñu proposé te ñu ngi ciy def te ñu ngi ciy jéem te di ci génn loo xamante ne qualité la ndax produit bi ñu bi leen wan ba ñu defar ko ba toll fu mu nekk nii produit bi foo ko génn teg ko ci marché bi da nga koy jaay ndax loo sellal teg ko ci yoon lii lépp lu ñu daan jënd te daan sellal ñu gis design bi design bi nag léegi defar nañ ko ba mu rafet kon nag ñun ñoo ci des nañu jéem a nàmmataat tànk yi gën taxawalaat taxawa euh, dëgëral taxawaay bi àndandoo liggéey voilà cinquante personnes yi réussir nañu ci formation euh, deux groupes yi muy dix jours mhm. est que diggante bi durant bi gàttul li ñu ci li ñu soxla woon ci formation waaw gàtt na gàttu ndax li tax ma na la gàtt na gàttu boo xamee fi nga jëm soo waajee xam fi nga jëm li ci des yaa koy àggale sa bopp te jigéen ñi fu nekk nii jigéen ñi fi ne léegi jigéen ñi lu luñ ne la mënuñu ko rek dañ ko gisul lu ñu gis dinañ xam fan lañ jëm ak moom te wan nañ leen fan la ñuy jëm ak moom te boo xasee ba xam ne lii fii la jëm leneen loo jot mën nga ci dem gàtt na gàttu ndax mën nañu renforcer waaye yor nañ loo xamante ne mën nañoo dem lu ñëwaat day dooleeku suñu lu ñu yor rek ñuy xool mu gën a baax waaye am nañ départ waaw. lan nga leen di conseiller bu fi jógee ñu continuer. xanaa ñu ànd ndax union mooy force. ñu ànd booloo taxawaat suñu dëgër laay ndax def nañ fi 5 jours yoo xam te ci jàmm ak salaam lañ dund. dañuy wax naan ay jigéen fu ñu dajaloo di loolu amatul. fu ñu nekk ci jàmm la ñu dundee amuñu leen amuñu benn tàngoor bu fa am. ñu ngi ci jàmm ak salaam pendant 5 jours ba bu ñu paree dañoo fondé benn groupe boo xamante ne ñu ngi ciy waxtaan continuer ci kon ñooñu bëggatuñu sax séparé wu. kon ñu ci sant yàlla. Mhm. ñu ngi daal xale stress ba na ci beneen niveau. macha allah loolu dama ciy sant yàlla. naa ci e <laughs> awo loolu mën naa am ñaare yee ko wax rek nañ bàyyi noonu rek garaawul. <laughs> ok jërëjëf. asalaamaaleykum mbooloo mi maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp euh, man la Ami Mbengue euh, nekk trésorière ATD association des tailleurs de Diender mhm. ñu boole woon ñu ci programme bi. muy formation savon bi. kontaan nañ ci remercier ñëpp. nan nga gisee formation formation bi dafa nekk formation bu am njariñ. Hmm. te avantage yi ci nekk dafa bëri. parce que liggéey dañuy liggéey maanaam mënal suñu bopp parce que lii dañuy produire. parce que bu njëkk nekk ñu woon di produire dañ doon multiplier. dañ daan fekk savon ñu ñëw dolli savon pour defaraat savon. Hmm. te xamuñu woon ndax lool baax na suñu yaram wala déet. mais lii nag dañuy fabriquer produiral suñu bopp muy lu am solo te xamuñu ko woon merci.